julli ci yenentam muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu nuyu leen nuyoo lislaam mi ngeen dégg léegi kon tey tamit dellu si nañ ñu fas yéene jokk suñu dars yi ñu doon jël ci téere bu ñuy tuddee al adkaaru wal aadab mooy ay ñaan ak ay teggin yi nga xamante ne jullit bi daf kaa war di ñaan di ko tegginoo ci dundam si suñu chaîne bi ñuy tuddee Alimni TV mbokk yi tey ñu ngi am buntu bu am solo moom mooy li ñuy tuddee al istixaara mooy tànnuloo borom bi subhaanahu wa taala bépp mbir boo xamante ne yow jullit bi yaa ngi si bugg a dugg mu aju si sa wàllu diine wala si sa wàllu adduna da ngaa war a tànnuloo borom bi subhaanahu wa taala da ngaa a denc soxna tànnulool yàlla da ngaa bugg a ubbi yàlla da ngaa a liggéey ci ab bërëb tànnulool borom bi subhaanahu wa kon listixaara bi nag nit ki moo koy defal boppam doo dem ci kenn nga ne ko defal ma listixaara comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee si jamono ay nit yoo xamante ne ay njabarkat lañ ñuy naan ñoom dañuy defal nit ñi listixaara si islam de yow yaay yow jaam bi yow yaa koy defaral sa bopp mu nekk nag loo xamante ne lu islam jox yitte la dinañ ko gis ci biir dars bi moo tax mu ne an jabir ibn abdillah radiallahu anhuma qaal jëlee nañ ci jaabir doomu abdallah yal na leen yàlla gërëm ñoom ñaar mu ne kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa de nekkoon na yuallimuna listixaarata mu ñuy jàngal listixaara mooy nañuy tànnuloo yàlla fil umuuri kulliha ci bépp mbir bi nga xamante ne ñu ngi ci bugg a dugg lu ñu bugg a dugg rek yonent bi mu ngi ñu doon jàngal nañu def listixaara balaa ñoo soobu ci mbir bobu nga xamantene ñu eh, ngi ci bëgg soobu kama yuallimuna surata min alquran comme num ñuy jangalé ben sar ci alquran nonu lañu doon jangalé ñaan bi ñuy tuddé alistikhara kon mu nekk lu yenente bi joxon yitte kon yow tamit julit bi war nga ko jang nga mokal ko lepp lo bëgg dugg rek nga daldi julli nga daldi di lo yalla yalla tannal la kon loolu mom moy alistikhara tannu lo yalla ndax li ngay dugg baxna ci yow bu baaxee ci yow yàlla na la yàlla yombalal bu baaxul ci yow yàlla na la yàlla remplacer lu la li ko gën mu daal la euh, dindi sa xel ci loolu kon mu ne noonu la ñu yonent bi doon jàngalee al istixaara comme num ñuy jàngalee benn saar si alquran mu ne yaqulu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ida hamma ahadukum bil amr bu fekkee ne kenn ci yéen de bëgg na def ab mbir bëgg na dugg ci benn mbir moo xam tox soxna la bëgg takk wala dafa bëgg a ubbi place wala dafa bëgg a liggéey ci ab bërëb wala dafa bëgg tukki lépp li nga xamante ne bëgg na ko def rek mu ne fal yarka rakaatayni na julli ñaari raka min gayri l farida ñaari raka yoo xamante ne du farata na naafila ñaari raka ci waxtu bi nga xamante ne dagan na mu naafila summa yaqul ginnaaw bu mu selmalee nag mu daal di wax allahumma inni astaxiiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو والموه عاجل أمري وآجله فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ولا منه أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به من وقال من قال من ويسمي حاجته مدال دي di آجوم بوبو boobu nga موم ne moom lay listixaara ngir yàlla ko kon li limay mooy ñaanu listixaara da ngay julli ñaar rak yo xamantene du farata nga dal diko def ñaan bi lu muy firi allahumma ma yow yàlla inni naka man astakhiruka mang lay tànnloo yow yàlla bi ilmika si sa xam-xam bi nga xamantene ne na lépp amul len lo rere wa astaqdiruka maa sakku ci yow nga kattanal ma bi qudratika si sa katan wa asaluka maa lay ñaan min fadlika al azim si sa ngeenel bu mag bi yow yàlla fa innaka ndaxte yow yàlla taqdiru yow yaay ki mën lépp yow yaay ki am kattan ci lépp wala aqdiru yàlla man aw ma kattan mënuma dara kon yàlla maa ngi lay ñaan nga kattanal ma wa taalamu yàlla yow yaay ki xam lépp wala aalamu te man xaw ma wa anta allaamul xuyub yàlla yow yaay ki xam li nëbb lii ñëw suba li baax si man ak loo xamante ne ci man kon yow yàlla allahumma yow yàlla in kunta taalamu bu fekkee ne xam nga ne anna haada amra mbir bii nga xamante ne maa ngi siy soobu xayrun lii lu baax la ci man fii diini si sama diine wa maashi ak si sama dund ak sama aduna wa aqibati amri ak sama mujjanteelu mbir aw wala mu ne fii amri ci lu gaaw si samay mbir wa aajilihi wala lu yéex si si samay mbir yàlla maa ngi lay ñaan faqdurhu li nang ma dogalal mbir bi wa yassirhu lii nag ma yombalal ma daal di si mën a jot summa barik li fiihi nga daal ci defal barke wa in kunta taalamu yàlla bu fekkee ne xam nga ne anna amra mbir bii ma bugg a dugg charrul lii fii diini baaxul si sama diine wa maashi ak si sama dundu wa aqibati amri ak sama mujjantel mbir wala mu ne aajili amri si lu gaaw si samay mbir wa aajilihi ak lu ci yéex baaxu ci yàlla maa ngi lay ñaan fasrifu anni mbir bi na ko soril ci man wasrif nii anhu nga dindi sama xel ci mbir boobu nga soril ma man tamit mbir boobu waqdur liyal xayra nga dogalal ma lu baax ci man haythu kaana fépp fu mu munte nekk wa summa ardini bihi nga daal di ma may ma gërëm loolu nga xamante ne dogalal nga ma ko yow borom bi subhanahu wa taala qaala mu ne wa mu daal di wax nga xamante ne moom la doon listixaara ngir yàlla tànnal ko ndax lu baax la ci moom walla du baaxul ci moom kon lii bu ko defee rek léegi mu daal di jóg nag def yi nga xamante ne moom mooy yi ko war si sabab yi tax mu am mbir boobu léegi nag bu fekkee ne soobu na ci mbir mi ñu ne nan lay xamee ne baax na ci moom bu fekkee ne gis na ne buntu yaa ngi tijjeeku fu mu dem rek yàlla mu ngi koy defal ab yombute mu xam ne ah kon de mbir bi baax na mu gën a góorgóorlu waaye bu fekkee ne gis na ne fu mu fëgg rek mu ngi dëgër fu mu dem rek ñu ngi koy delloo mu ne na xam ne ah kon mun naa mbir mi baaxul ci moom kon noonu mu daal di jébbalu jébbalul borom bi subhaanahu wa taala mu xam ne yàlla moom moo ko tànnal mbir mi kon baaxul ci moom kon noonu lañ koy xamee nekkul charte nit ki tëdd mu dal di gént wala muy gis leneen déedéet dafay soobu rek def sabab yi dagan yi bu fekkee ne yomb na yàlla dogal na bu ko defee mu xam ne ah mbir bi baax na ci moom bu fekkee ne contraire bi la mooy dem na affaire bi dëgër mujjul am mu xam ne ah yàlla moom moo ko tànnal te li ko yàlla tànnal moom moo gën a baax ci moom mu daal di jébbalu kontaan ci loolu mu ñaan yàlla yàlla daal di ko utal feneen fi nga xamante ne mooy fi gën a baax fi nga xamante ne foofu la yaakaaroon kon nii moom mooy listixaara nit ku nekk moo koy defal boppam kenn du ko defal sa morom kon da ngay julli ñaar rakk nga daal di ñaan yàlla yal na la yàlla tànnal kon loolu kenn ku nekk mun na ko kon lii ñaan la bu am solo boo xamante ne jullit bu nekk war nga ko mokkal lépp loo bugg a dugg rek nga julli ñaar rakk nga daal di euh, jublu ci yàlla nga daldi di ko tànnaloo bu fekkee ne lu baax la ci yow mu dogalal la ko bu fekkee ne baaxul ci yow bu ko defee mu daal di la tànnal lu baax ci yow mu fànqal la mbir boobu kon lii moom moo nekk suñu dar si tey hada wallahu وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته